ñu ngi dem vers une présidentielle euh, pour laquelle vous êtes euh, vous êtes candidat il euh, un processus qui est lancé mais pour le moment qui ne concerne que Khalifa Sall et Karim Wade euh, élection yi ñuy jógee ya a eu des entraves ay jafe-jafe yoo xam ne nemmeeku nga ngeen ko pour discuter du processus électoral ngeen bañ les décisions vont s'appliquer à vous elles sont générales et impersonnelles est-ce que am nga yeneen poñ yoo xam ne d'abord est-ce que jàpp nga ne di dinañ mën a dem ci benn processus électoral libre démocratique apaisé et transparent et puis yan poñ lañ yan yan ñooy les points de vigilance processus électoral bi ñu bëgg amaguñ ko hmm. euh, mooy processus bu inclusif ñu woo la dialogue nga bañ ne la kaay waxtaanee ko nga bañ non dialogue amu fa dialogue bu inclusif c'est pas personnel mooy nan lañu mën a fexe ba ñu war a bokk ci dialogue boobu yëpp bokk may mën a nan la ñu mën a fexe ba prisonniers politiques yi génn. non ça vous l'avez mais le, le côté processus électoral. ay moo tax ma ne la processus bi mooy loolu mooy ñi war a bokk bokk foofu la tàmbalee su loolu amul rek processus bi baaxatul ñi war a bokk ci élection yi est-ce que dinañ bokk est-ce que du ñu indil élection yoo xamante ni Macky Sall mooy tànn ñi nga xamante ni ñooy bokk. éliminer ñi nga xamante ni duñ bokk loolu mooy processus loolu mooy défi loolu moo mën a indi dal loolu moo mën a indi jàmm loolu moo mën a tax président bi ñoo am benn légitimité bu dëgër processus boobu baaxul parce que processus bi Macky Sall teg mooy lan processus sélectif la sélectionner candidat yi ko intéressé. et vous acceptez de prendre part au processus malgré les doutes. waaw mais nan la ñuy def élection yi kenn du ko boycotté dañ ciy dem. dañ ci dem mosuma gis présidentiel au Sénégal ñu koy boycotté mais dañ ciy xeex di wax li ñu war a wax li ñu àndul ñu ànduñu ci li ñu rafetuwul ñu rafetluwuñ li ñu ci woo ca ñu xam ne lii baaxul duñ ca dem. ñu wax ko mooy comme dialogue bi leen pour yeewi f quatre moo leen dese te F24 seen principal euh, point de revendication c'était l'histoire de la troisième euh, candidature loolu c'est c'est c'est enrayé f TF24 moom pëccuxoo na pëccuxoo boo xam ne na m'étonnerait que ngeen mën a euh, réussir à obtenir des compromis euh, F24 instrument bu am solo la def na liggéey bu ama am solo ban liggéey ci question troisième mandat leen ci dara non xam nga lu tax kañ la F24 juddu waaw mais attends attends F24. <laughs> les partis politiques en général mais pas F24. non mais parce que parti politiques yi xeex troisième mandat yëpp ñoom ñi bokkul yeew yi ña nga F24 mais mun a pression boobu bul ko xeeb position yi intellectuels yi jël bu ko xeeb yi journalistes yi jël bu ko xeeb toute cette pression la wan na Macky président Macky Sall mu xam ni yoon bi baaxul. donc mais le reste du processus ban ban ban kuréel ngeen yaakaar pour arriver à faire fléchir. mais le le, le mais F24 mi ngi dox ba léegi. wax ma doxul de. demain am ngeen conférence donc, donc vingt 24 mi ngi dox. li nga xamante ni moom la F24 nekkoon ci point mooy. problème mu mandat bi ñu def un processus inclusif candidats yi war a bokk ñu bàyyi leen ñu ñu bokk ñu organiser et élection libre et transparente loolu combat boobu F24. ñi war a bokk oui ñi war a bokk. ñi warut a bokk nag ñi yoon jàpp ne waruñu bokk nag. yal na nekk yoon bu tegu ci yoon bu nekkee yoon bu tegu ci yoon ak njub ak maandute amul benn problème. waaye bu fekkee nekk na yoon boo xamante ne yoon bu ñu instrumentaliser la may mun a day indi ay jafe-jafe la